leen fi ci àgg waaye na gën a kàttan dañu àggale seen yéene ci alxuraan sax tax na ci génn yëng may may leen paas tax ci càggante gi nga xam ne bëgg nañ ko ci sàggane alxuraan loolu lu ñuy wax ak lu ñuy dañ day romb suñu nopp rek waaye déggulu ko li ñuy jëf li li nekkoon rek ci la nekk waaw nekk ci bëgg alxuraan fonk ko di ci liggéey jaaxal suñu jeexal suñu lépp sëñ Abdou Aziz na sa xel daal bu baax li nga li xam xam nañ li nga bëgg xam nañ li nga bëgg lislaam nga bëgg alxuraan waaye na sa xel daal bu baax a baax a baax a baax lii nu nekk kenn mënu na ci jëlee dara mënu na ci jële kanam rek la jëm ba bis penc ba kanam rek la jëm du sooxe du du du du du du doyadi ñi ko ñi bëgg ko bëgg a doyadal sàggane alxuraan wala nga bëgg ko doyadal yaa yaa yow ci yow rek lay dellu kon nañu seet seen bopp ñi nga xam ne ñoo ko ñoo bokk lislaam te di ay kilifa nañu dellu ci seen bopp nañu taal seen bopp seen diggante seen diggante seen borom luñ ci mën ñu def ko te fonk alxuraan bu ñu mënta dimbali ñi nga xam ne ñoo liggéey ñooy liggéey ci alxuraan itam ñu maanu ca te xam ne xëy na ñii dañ leen sédd lii ñii ñoom ñu tëdd leen leer te nekk seenu liggéey waaye buñ jëm mukk ci alxuraan ndax mënuñ ci dara kenn mënu ci jële sëñ Abdou Aziz na sa xel daal bu baax jërëjëf jërëjëf jërëjëf Touré jërëjëf Touré ñoo ngi sant ñoo ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax a baax gis nañ jéego yi ngeen jéego seen jataay bi yépp xam na yëg nañ ko Cheikh mu Cheikh mu sëñ Cheikh Sidi Mokhtar mi ngi leen di sant di gërëm ñoo ko fas yéene yéen rek waaye bu xel dem ci dara loolu nekk ci alxuraan rek jeexal ci suñu lépp yëpp xamuñu dégguñu kuy wax xamuñu kuy pexe ñun yàlla rek lañu lañu xam yàlla rek lañu wut a xam ci yàlla rek lañu wut a nekk kon loolu rek la mooy wax bi ñi ngi sant euh, sëñ daara yi baax nag yéen ñi nga xam ne yéen yéen yéen ci nekkal ñëpp ñu leen sant di leen gërëm bu waaye na seen xel dal seen xel dal bu baax nekk leen ci li ngeen nekk nag lu leen ci fekk rek na leen ci fekk lu leen di fekk rek na leen ci fekk kuñ ci affekkoon xapp ko jës itam na wax la si si naa li waxoon rek fausse fausse birab bil kaab loolu rek la wax foofu rek lañ leen di nekk nag rek la demee na na na amul amul lu ñuy xalaat amul lu ñuy sakk sakk amul lu ñuy firfiri nan nekk ci li nu nekk ci yàlla lan nekk ci yàlla lan nekk yàlla moom lépp yàlla mooy moom moom moom moom mooy def mooy dindi mooy borom kàttan te dara wupp ko yàlla moo nu gën moo nu gën a xam suñu bopp gën ñu ci suñu bopp nan xam loolu te nekk ci li nekk. jërë ngeen jëf sëñ sëñ sëñ Abdoul Aziz ñu ngi lay sant leen gërëm bu baax di sant mboolem sëñ daara yi fi ñu ngi fi teew ñu ngi lay sant leen gërëm bu baax yéen yàlla dina ñaan suñu borom mm. mu sàmm mu sàmm leen sàmm leen bàyyi leen fi may leen wér kattan ngeen gën a nekk ci li ngeen nekk gën a fas yéene nekk liggéeyal liggéeyal liggéeyal alxuraan di di ñaan ñu ngi ko bokkal bokki sëñ daaraam yi mooy ku mag ku fokkal fatiha rek lim leen ñaan nañ ko wuñu wuyu leen ko ca seen njëriñ dong mu lay doon da di da da leen da di defaral seen seen seen wërsëg da leen koy dollil te suñu boom bu noppi daleen koy delloo loolu rek la na ngeen ko ci wuyu bu baax a baax a baax te xam ne dara nekku fi dara nekku fi yàlla rek a fi nekk ak jëf ju baax gëm yàlla jaamu yàlla jëf ju baax lool rek fi leen leneen nekku fi lu ci lépp kuy am joxoon a adduna li ci biiram loolu tee wopp dootee rag dootee jaaxle dootee bari fitna dootee da eh, da ngeen di wéy te doo xam foo jëm la nga am doo xam noo koy def amul benn njariñ li am njariñ mooy am yàlla ah, yaakaar àllaaxira ëllëg loolu nag gëm gëm rek gëm rek jaam gëm jaam jëf lu baax jeex na. ñun lenn ñorul lu dul sëñ Tuubaa rek lenn ñorul lu dul sëñ Tuubaa ak ak ak ak njabootam yàlla sunu borom nga xam ne dara tëru mu defal nu ak wér defal nu ak tal defal nu ak man te di ko jëfe fu nu toll sax ci ndigalam rek te lépp loo xam ne moom lay tere kenn duñ ci seen kenn duñ seen ci yoonu jëm ci jërë ngeen a jëf